te loolu ñu mu ko defal bariwul. nee te loolu ñu mu ko defal bariwul. ma gis ko xam ko. nee ma gis ko it xam ko. xam ne ba tey nit ko raara. nee xam ne nit ku raara gi. PDS. nee PDS. sama xalaat dañ ci biir. nee sama xalaat mu ngi ci biir. te booba. nee te booba. sosaguñ ko nee sosaguñ ko. ndax Gabon. nee ndax Gabon. laa jóge fa laa jógee. ñëw fa ñëw def ko avocat. nee ñëw def ko avocat. mu téye sama loxo. nee mu téye sama loxo. ni ma. ni ma. Ablaye Wade euh, euh, Senghor day nee Senghor day mu ngi bëgg yàq réew mi nee mu ngi bëgg a yàq réew mi parce que dafa bëgg a suñu génération nee ndax dafa bëgg a sote suñu génération jox Abdou Diouf nguur nee jox Abdou Diouf nguur gi waaw loolu dafa bannir toute une génération nee te loolu dafa bannir toute une génération kon war nañoo xool nee kon ñun kat war nañoo xool ban taxawaay la ñuy am ñu di ci waxtaan nee ñu di ci waxtaan ba mu fekk ma Gabon. nee ba mu fekk ma Gabon. maa ngi jiite woon benn bureau d'étude. nee maa ngi jiite woon benn bureau d'étude. boo xam ne ingénieur yi. nee boo xam ne ingénieur yi fa nekkoon. ñoo defaroon semaine de fer ba boobu ca Gabon. nee ñoo defaroon chemin de fer ba ca Gabon. man mii maa yoroon bureau d'étude. nee man mii maa yoroon bureau d'étude ba. muy groupe 5. nee muy groupe 5. xool leen ko ci Google. nee na ngeen ko xool ci Google. ok léegi nag. nee léegi nag. walillahi alhamdu. nee fa lillahi jàmm jooju nga bëgg ci sa xol. ne jàmm jooju nga bëgg ci sa xol. incha allahu yàlla dina la ko defal ne incha allahu yàlla dina la ko defal. yàggatul. ne yàggatul. fan yu néew. ne fan yu néew. semaine yu néew. ne semaine yu néew. weer yu néew. ne weer yu néew. lépp mel lañ ko bëggee. ne lépp dana mel ni lañ ko bëggee. amiin te mooy ni mu baaxee. ne tey mooy ni mu baaxee. yow ne yow. doo dóor sa noon. doo dóor sa noon. doo ko toroxal doo ko toroxal. da nga koy rus a xool sax. ne da nga koy rus xool sax. ñaata nit. ne ñaata nit. ñoo la wor. ne ñoo la wor. woraat la woraat la. worati la worati la. nga teral leen ne nga teral leen. yow doo doomu aadama. ne yow mii président doo doomu aadama. doo nit. ne doo nit. loolu kenn du ko def. ne loolu ko def. doon it waaye doon it li ma ci jublu. ne doon it li ma ci jublu. mooy macha allah rek. ne mooy macha allah rek. yàlla na yàlla xeeb dolli. ne yàlla na yàlla xeeb dolli. feeg une semaine. ne feeg une semaine. ñu dugg ci beneen wàññi. ne ñu dugg ci beneen wàññi. bu boobaa. ne su boobaa. yëf yi mooy rectifier boppam. ne yëpp yi mooy rectifier boppam. ndax yonent bi ne lu ne day dellu cosaanam. ne ndax yonent bi ne lu nekk day dellu ci cosaanam. Hmm. man nag gannaaw bi nga ñëwee. ne man nag ginnaaw bi nga ñëwee. du ma la téye. ne du ma la téye. ndax xam naa ne macha allah yaa ngi dëgg ne ndax xam naa ne macha allah yaa ngi dëgër. ndax yaa ma mag. nee na yaa ma mag. waaye ba te yaa ma mën. waaye ba léegi yaa ma mën. yow ñun fa ñuy sonne. ne yow ñun fa ñuy sonne. dem nañu Chine. dem nañu Chine. ñu war a def benn parcours ca Shanghai. mais ñu war a def benn parcours ca Shanghai. bu ñu demee ba bu njëkk bi. ne bu ñu demee bu njëkk bi. metti mënu ma koo complété. ne metti mënu koo. complété ne mënu ma koo complété ma ne gars yi kaay leen ne ma ne gars yi kaay leen ñun amuñu doole Ablaye Wade ne ñun amuñu doole Ablaye Wade léegi nañ dem fa ñuy génne ne léegi nañ dem fa ñuy génne ñu xaar ne ñu xaar leen fa <laughs> bu ñëwee rek ne bu ñëwee rek ñu maasee ne ñu ñoom ñoom am nañ juróom-ñaari waxtu ne ñoom am nañ juróom-ñaari waxtu di dox ne di dox ba yegg si ba ñu ñëw rek ne ñu ñëw rek ana waa Chine ne ma fekk Chine yëpp woon nañ leen ko ci juróom-ñaari waxtu mais fekk Chine yëpp woon nañ leen ko ci yooyu. kon allah. ne kon macha allah. maa ngi nuyu mboolem ñi nga. àndal mais maa ñi nga àndal. te ku ci ne. ne te kenn ku ci nekk. am réew la ne am réew la. xam nga Omar Sarr. ne xam nga Omar Sarr. bi mu duggee ci gaal gi. ne bi mu duggee ci gaal gi. dem Mauritanie. dem Mauritanie. dañu ne dafa def mu. bitim réew ne ne dañoo wax ne. dafa gé daw dem bitim réew. mais dañoo wax ne dafa daw dem bitim réew. ma ne loolu ruslu na. mais ma ne loolu ruslu na. xamuñu histoire. xamuñu histoire. waalo. waalo. capitale capital mooy Njurbel. mooy Njurbel Njurbel. Njurbel mooy Rosso Mauritanie. mooy Rosso Mauritanie. kooku génnul waalo. ne kooku génnul waalo. Rooso Mauritanie mooy Njurbel. nee Rooso Mauritanie mooy Njurbel. ba barak yi ay maamam daan faloo. nee ba barak yi ay maamam daan faloo. kon moom génnul kër maama. nee kon moom génnul kër maama. frontière fii frontière frontière fii frontière fee rek. mais dafa garaaw nit ñi ñàkk xam. seen waaye dafa garaaw nit ñi ñàkk xam. seen i cosaan seeni cosaan. waaye di la wax ne daal. waaye di la wax ne daal. le Sénégal. ne le Sénégal. l'Afrique l'Afrique. l'islam l'islam. sont fiers. sont fiers. de Ablaye Wade. ne Ablaye Wade. xam nga defoo fi. ne defoo fi. waxoo fi. ne waxoo fi. lu ñaaw. ne lu ñaaw. lay xase. ne luñ lay xase. kon nag del nekk ki nga nekk rek. nee ko nekkal li nga nekk rek. ak fan wu gudd. ak fan wu gudd. ak fan wu gudd lool ak fan wu gudd lool. ak wér lool ak wér ak mbaax lool ak ba yàlla defal la. nee ba yàlla defal la. li nga bëgg li nga bëgg. xam nga yonent bi. nee xam nga yonent bi. dafa def li mën lépp. ne dafa def li mu mën yépp. affaire bi te ticc. affaire bi te ticc. mu dem. nee mu dem. tay tay. ñu gars yi fay gars yi ngay si léegi rek. borom sànnikatu xeer yi. nee mu fay sànnikatu xeer yi. yàgg nañ fi. ne yàgg nañ fi de. léegi de nee du léegi de. ñu fay ay sànnikatu. ne ñu fay ay sànnikatu xeer. ñu sànni ko xeer. nee ñu sànni ko ay xeer. ba yaram wi di naaj. nee ba yaram wi di naaj. am ku ko làq ci toolam. nee am ku ko làq. ci toolam. ci toolam. mu ne ay yàlla. nee mu ne ay yàlla. Muhammad. nee Muhammad. nit la nit la. fii la mën fii la mën a yem. li ci des nag yow ne li ci des nag yow. boo bëggee mu dem dana dem. ne boo bëggee mu dem di nga dem. boo mu dem du ne boo bëggul mu dem it du dem. waaye bu dee Mouhamad rek. waaye bu dee Mouhamad rek. dara du dox. ne dara du dox. ndax Mouhamad kat. ne Mouhamad kat. mënul dara mënul dara. yàlla yebal ñu jógee Medina. ne yàlla yebal ñu jógee Medina. ñëw di ko wër. ne ñu ñëw di ko wër. ne ko ñii xamuñu la. ne ñu ko ñii xamuñu la. ñun ñoo la soxla. ne ñun ñoo la soxla. ñëwal ñu dem. ne ñëwal ñu dem ñu jox la lépp. ne jox la lépp nga doxal. ne nga doxal ñu topp la. ne ñu topp la lislaam bi ñëw ba tey. ne lislaam bi ñëw ba tey. loolu la yàlla def. ne loolu nag président loolu la yàlla di defal. lépp bay baax doo dara lépp lépp lay wut ne lépp bay baax lépp lay wut lépp lay wut ne lépp lay wut insha allahu taala insha allahu taala sa sa sa yéen a rafet na ne sa yéen a rafet na sa xam-xam rafet na xam-xam rafet na jikko rafet na sa jikko rafet na te wax dëgg yàlla macha dëgg yàlla macha allah. góor ñu ñaaw ñu bokkoo ci. nee góor ñu ñaaw ñu bokkoo ci. walilahi alhamdu. nee falul laa yoo xam. kon nag nee kon nag. ñu ngi lay gërëm fu gërëm yem. nee ñu ngi lay gërëm fi gërëm mën a yem.